conscient de ça amul ay jeu de il a parlé kii euh, la dépolitisation de notre administration mm-hmm. parce que man mënuma comprendre mm-hmm. comme l'affaire euh, Lat Diop tout à l'heure kii autosaisine dafa am rapide et brève te loolu la ñoom rupture yi kaasoon ci ab tuuma waaw ci ab tuuma boobu ci tuumaal ci waxi mbedd la wax loo xam ne yenn wul ci milliard bu nu dénkaane ci koo xam ne récemment la génn boo xoolee côté probité morale am mhm. nga jël ko ci saa si woo ko teg ko déglu ko pendant des heures à la gendarmerie mhm. boobu noonu nga toog bii ñu toogaat l' affaire sûreté urbaine bu ñoom Mamadou Ibra bi gis nga nu mu gaawee mhm. l' affaire Bah gis nga nu mu gaawee mais la l' affaire Cheikh Tidiane Ndiaye ak Cheikh Tidiane Koulibaly bi PDS tuumaaloon ñu ngi tribunal et PDS a ngi gundaandaat donc bii tamit l' administration xam nga tey dafa am ñun dañ taxawoon di défendre le la République et les institutions de la République. Mmh. la police et la gendarmerie. pour que ñu restaurer l'état de droit. ci loolu la ñu taxawee woon ba ñoom ñu jàpp ne ñu sax bokkuñoo ak ñoom faruñoo ak ñoom. Hmm. mais ñii bi ñu ñëwee des ruptures am. l'administration les techniciens là ñi nekk dans l'administration. ñoom waruñu nangu. en général bu ñuy ñëwee parce que l'administration lu ñu wax. mais da nga war a obéir République. parce que jàng ngeen fi ngeen war a jàngee ñu nommé leen fi leen war a ay compétence moo tax ñu ñoome leen mm-hmm. mais bu leen nangu yéen yéenay génn nekk les avocats c'est que notre administration xawma ban majorité mooy ñëw des techniciens de surcroît des techniciens les majorités yi war a ñëw prochainement mm. war nañu voter loi pour dépolitiser cette administration loi buy tax au fonctionnaire dootul politique mm. parce que les inspecteurs des impôts yii nekk biir impôt presque ñooy attaqué chef d'entreprise yi contrôleur bi contrôlé woon Mansour fay vérificateur bi vérifié woon Mansour fay ci biir administration la nekk ci loo xam ne jaarul yoon alors que daaj sax bind na président cour de comptes. koo facturé loo xam ne ni passé na nga facturé ko sur facturation tooñ Mansour Faye kooku dama waroon wax radiation la waroon mujjee. Mhm. tey ces mêmes personne yi nekk dans l' administration bu coow politique amee ñu génn ne ñooy na nañu xam ne l' administration. Mhm. dafa war a parce que citoyens yi ñoo leen fa teg république nag. l'administration bu nekkee commis de l'administration dafa war a respecter l'administration donc nañu bàyyi bu yooyu amee ñu indi l'administration parce que ñii ci mbedd bi lañ nekkoon ñoom Cheikh Tidiane Dièye ñaata at liggéeyuñu ñi tey jii nii kii def na ko tey le ministre laa na rire rire comment elle peut écrire fédération. ministre de un ministre qui ne pas l'architecture ah, gouvernementale foofu combat baa nga fa de xam naa dañu si ñëw ci seen émission parce que aujourd'hui Euh, comme euh, mais parce que xamul lu tax mais faute administrative mënul weesu loolu donc tey le ministre de communication sukkandiku ci mhm. ci rapport convention mhm. ay jeunes te te te te nga yow ministre ngay sukkandiku ci seeni rapport da ngay état guerre des chiffres am foofu sauf que Abou Diallo fi mu toll nii ñi nga xam ne si ñoom ñoo di les agents de l'état ci ay chaise injectable lañ toog. waaw non parce que tey jii bu fekkee dañuy dagg ramp ay contrat CDI ay contrat yoo xam ne à durée indéterminée. mais mais ñi ñu leen di jël di jël ay DG di dagg seen i ay. non mais tamit ñu def. est-ce que fi mu toll nii du ñu ragal. tey li daal Bachir Fofana. Mhm. mais appel candidature poste bu état. Mhm. un DG yéeg fule loolu. dal na ci benn programme ministère de l'agriculture koo xam ne appel candidature la duggoon bailleurs yi ñoo ko jël mais mu ne leen du dem appel candidature la donc l' administration ci boppam ñoo war a jóg loolu moi je parle aux 46 pour cent hmm. je parle aux futures élections c'est ça c'est important pour que député hmm. ñu jëm bu ñu seetaanee l' administration wala ñu ne les les agents de l' administration du projet hmm. les juges du projet les journalistes du projet dëkk bi dañ koy diviser en deux camps j'avais sans que je rectifie c' était madame Diossé Madeleine Mendy qui la présidente des femmes de RV moom moo demoon tribunal Absolument. donc ma xam ko sur eh les vertus parce que ñoom nee nañu opposition bi fi nekk dañuy yónni ay nit mais opposition boobu dinañ ci ñëw ci laay dugg sax ak Alassane Thierno Alassane Sall <laughs> Thierno Alassane Sall eh. ak ñi ma xam eh. seeni i valeur ak seen i vertu ñooñu duñu yebal kenn muy dem di leen waxal lu ñu war ñoo koy waxal très bien loolu lenn alors Alassane ci loolu sax laay dugg avant ñuy dem publicité euh, muy euh, Ousmane Sonko euh, Kader mi ngi koy rappelé sànq def na benn live ci bu mu doon dalal ay ay musiciens Euh, donc Sonko qui menace et attaque l'opposition euh, qu'il invite au Thioki combat <laughs> parce que nee na daf ko namm quoi namm na Thioki namm na namm na Kata euh, est-ce que les priorités euh, nekkul nekkul ailleurs que euh, que ñuy tàbbi ci ay Kata ak Thioki waaw honnêtement je pense que loolu les Sénégalais xaaruñu ci li nga xamante ne mooy ay Kata ak Thioki il est vrai que Euh, gestion mun na ànd ak politique. parce que aussi c' des acteurs quoi comme. bien des acteurs politiques. du mhm. la wàññi dara ci li nga xam mhm. euh, ni mooy li ñu bëgg amaana on la dissolution de l' nationale donc certainement fii mois d' jàpp novembre on va vers li nga xamante ni mooy des élections législatives anticipées. Mhm. je pense que aujourd'hui également loolu bokk na peut être boo xoolee ni mu waxee dafa mel ni euh, prépare li nga xamante ni également une sortie n'est jamais anodine euh, forcément day am ay soubassement day am loo xamante ni moo koy wundu et ça mm-hmm. et c'est prémisse peut-être la jot annoncé démb parce que boo xoolee sax nee waxtu politique jot na mm-hmm. mm-hmm. mais pour les Sénégalais mais euh, il a traité les opposants du de poltron mais est-ce que par hasard aussi tamit moom nee na bëggul euh, kii état de grâce mais nee na nee na bu ko opposition bi may état de garde nañ génn coow yi mais opposition bi tamit est-ce que par hasard waxul dëgg parce que parce qu'on ne voit personne en fait on ne voit que Bougane Gueye euh, Thierno Alassane Sall Thierno Bocoum xam nga. waaw mais xam nga.

indi yenn orientation parce que débat yooyu mooy tax également ñu mën a rectifier ñu mën a repositionner par rapport li nga xamante ne mooy la marche du monde. mais Alassane actuelle est-ce que le Sénégal a besoin de de de euh, de choki de combat. de transition régime yi. économie buy raam. poche yi dara new ci gaa ñi sonn. est-ce que war est-ce que war nañu tal. bi jóg mbaloo ak ak xeexoo. Euh, xiiroo ngaayoo ci entre politique. c'est-à-dire su may su may may xaar Ousmane Sonko. Mm-hmm. je l'attends sur les questions principielles. yu réew mi par rapport à la bonne marche de ce pays là. Hmm. aujourd'hui il y a des centaines pour ne pas dire des milliers de pères de famille yoo xamante ni depuis deux mois trois mois quatre mois ñu ngi mois presque jotuñu seen salaire. Mmh. comment faire pour dalal pères de famille yooyu noonu pour indi ay saafara par rapport à ces problèmes là comment accompagner les malades par rapport yi nga xam mooy seen prise en charge ci wàllu santé jafe-jafe ñu am comment soulager les ménages comment continuer les poursuites yi nga xamante ñu ngi koy def en terme justement donc pour fexe ba dund bi gën a yomb je pense que su may xaar Ousmane Sonko je l'attends plus là-bas maintenant li nga xamante ne mooy activité politique il faut laisser ça aux surtout l'opposition bi nga xamante ni peut-être pour recadrer su il va il va il va semer les germe même de sa propre destruction parce que dama ne le Sénégal de deux mille vingt et un ba jàpp deux mille vingt trois bii ba élection yi ñu génn ce sera pas le Sénégal de deux mille cinq aujourd'hui on a une population mature capable de réfléchir et de consommer di xool di observer le moment venu ils feront le choix bi nga xamante ni moo gën moo tax ku ci nax sa bopp yaakaar ne mais déjà sa moom dama jàpp ne sax wala am problème mais on est en plein hivernage <laughs> il y a des problèmes d'inondation partout tey aujourd'hui agriculture fan lañ ci mën a toll est-ce que on li ñuy xamante ñu ngi koy wax ci li nga xam mooy ci wàllu mbéy bi est-ce que les gens sont pour man yooyu mooy les questions yi nga xamante ni moom ñoom yooyu la gouvernement bi war a mën a porter pour véritablement nit ñi mën a am nit ñi mën leen nawloo mais mënuñu dugg rek à quatre mois nga ñuy bëgg a ay mortal combat encore alors que lu dul ay jafe-jafe lu dul récession lu dul ay pharmacie ñuy toj lu dul ay station essence ñuy taal lu dul ay oto yu ñuy lakk c'est-à-dire on a mis on a failli mettre ce pays-là en péril pour des raisons politiques man je pense que le bon sens voudrait que politique sax ñun ñëpp ñu jël ko daj ko te dugal ko ko ci benn classe teg ko foofu ranger ko au moins pour un an deux ans trois ans. c'est un nouveau temps de rattraper avec temps de rattraper. les problèmes déjà ñu dem ci ouverture enseignants certainement ils ont li nga xamante mooy ay dettes ñu leen war a mën a fay fayaguñ ko les entreprises yi nga xamante ni nee de mille milliards état amel na leen ko en terme de dette fan la état mën a toll je pense que yooyu lañ mën a xaar état am na ñu mu yoreel kon ko mais si les entreprises kon nekkul ñun rek ñoo yoreel waa BTP